jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV mbégte ak contentement la ñuy am ngir fas yéene leen andil li nga xamante ne bii moo gën a fës ci ëttu yéenekaay yi nga xamante ne bii ñooy bind ci wàllu làmb suñu mbokk internet yépp yi ñuy topp ci Leewtoo TV ñu ngi leen di bëggee di leen ñaanal jàmm ak salaam tey nag sama rakk ji nga xamante ne bii moom laa doon toogandool mu fegook man sama wet nii di ndey Mbacke Diop tey euh, ñëwul mais ñu ngi koy ñaanal jàmm ak salaam di ko bëggee di ko kontaane tey leen leen fas yéene andil bokk na ci tey suñu làmb dafa ñëw ak ñi nga xamante ne bi ñoo fa yéene mujjee làmb ji euh, ci seen loxo ñu tuddee ko relève bi ñi nga xamante ne bii daal làmb ji ci seen loxo lay mujjee suñu làmb ñëw na ci tudd na ci ki nga xamante ne bii moom mooy booy Niang numéro 2 xale bi nga xamante ne bii mooy doomu per de tudd na ci Sa tudd na ci Reug Reug ak ki nga xamante ne bii mooy Ama Baldé ak Siteu suñu làmb tey dafa ñëw ne euh, xale yi juróomi mbër yi ñu leen euh, waññal ñu nekk ay espoiru làmb ña nekk ña nga xamante ne bii kenn mënul tudd làmb ci Sénégal doo leen ci boole làmb ji ci seen loxo lay mujjee comme ni mu ko waxee Boy Niang la Sa Thiès rëg-rëg ak ki nga xamante ne bii mooy amaa balde ak Siteu nee làmb ji daal lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg bu ñu bu ñu yónnee yàgg incha allah làmb ji ci loxo juróomi xale yii lay mujjee incha allah bu ci yàlla àndee ba ñu jógee foofa ñu ñëw ci combat bi war a am ci diggante Sokh ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Franc. di combat ba nga xam ne amateur yu bëri ñu ngi koy xaar di ko bàyyi xel mu nekk combat bu neex war a am le 19 join incha allah bu ci yàlla àndee tey nag ñu fa yéenee def seen première face to face seen première jàkkaarloo seen première jàmmaarloo seen première ndaje tey la war a am ci benn hôtel fii ci Ndakaaru ñoom ñaar ku ci nekk fas yéene waxante ak sa morom ku ci nekk fa yéene wax naka ngay préparer combat bi ku ci nekk fas yéene wax combat bi lu mu la jaral ku ci nekk fas yéene wax combat bi fan nga ko teg loolu incha allah tey lay am ci benn hôtel fii ci ndakaaru diggante soq ak ki nga xamante ne bii moom mooy franc waaye ba ñu jógee foofu ki nga xamante ne bii moom mooy euh, fils de Zal war naa daje ak euh, serpent noir euh, incha allah serpent noir nag nekk fële ca Cambérène fi mu teg bëtam moom mooy septième victoire am gannaaw boo ma amee six victoire ci làmb ji di xele ba nga xamante ne bii xele bu mot a bàyyi xel na ci làmb xale ba nga xamante ne bii macha allah ndaanaan la am na gannaaw mën naa bëre am na fulla am na fayda bu pare day jox làmb li nga xamante ne bii moom mooy àqam combat boobu nag incha allah euh, nar a dox ci digganteem ak fils de Zal nar a nekk combat bu metti ci moom. nara nekk combat ba nga xamante ne bii euh, liñ ciy xaar bëri na ndax ñoom ñaar ñaari xale la na ba pare danoo nekk ci li nga xamante ne bii moom mooy yoonu làmb diggante fils de Zal ak ki nga xamante ne bii mooy jaan ju ñuul ji ñu naan ko le serpent noir de Cambérène bu ñu jógee foofu ñu seeti ki nga xamante ne bii mooy le foudre de euh, Thiaroye le foudre de Thiaroye incha allah moom tamit mën nañoo wax ne décroché na cinquième combat ci wàllu MMA. mu war koo jàmmaarloo ak brésilien bi nga xamante ne bii moom la ñuy wax bu Bucesa almeda war a am le 22 avril incha allah bu ci yàlla àndee gannaaw ba ñu gisee ne jamono bi passé du mu dernier combat am MMA gis na ni mu mujjee mu mel ni bu waree ñëwaat ci MMA bi nag dafa war a andiwaat la nga xamante ne bii lu bees tàq la la war a doon ci MMA bi muy rëg rëg-rëg di euh, dënnu bala nekk ci caaro yi gannaaw bu mu bëreek guy gi le 20 février bi passé ba yàlla may ko ci ndam mu nekk ci dynamique victoire fi mu toll nii nag war a duggaat ci li nga xamante ne bii mooy MMA bi war a affronter ak euh, brésilien boobu ñuy wax Marquis Bucesa Almeida le 22. avril incha allah bu ci yàlla àndee ñu koy ñaanal rek suñ borom defal ko ci ndam parce que mbëru Sénégal bu génn ci réew mi jawante ji bitim réew drapeau Sénégal lay porté te it Sénégal lay représenté fu mu mën di nekk bu ñu jógee foofu. ñu dem euh, xooli komba bi war a dox ci diggante euh, a Sock ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, fils de Balla fils de Balla nekk école de lutte Balla Gaye di xele ba nga xamante ne bii macha allah moom tamit mët naa bàyyi xel ci làmb te mi ngi ci yoon mi ngi ci ay victoire yi nga xamante ni bi ci la toog te macha allah nee na yoonam bëggul kenn ku ko ko ku ko ku ko baareel combat boobu incha allah euh, suñu làmb dafa ñëw ne ñu boobu revanche la par procuration nee na entre Balla Gaye la ak Modou ndax kii ma nga Rock Énergie kii ma nga école de lutte Balla te bu leen fàtte ne. Modou ak Balla Gaye bëre nañu ñaari yoon Balla gay daan ki nga xamante ne bii moom mooy Modou Lo ñaari yoon moo tax mu ne ñaari xale yi ku ci nekk kii poulain Balla Gaye la kii poulain Modou la ñoom ñaar ku ci nekk sa sa sa sa sa général moo lay andi euh, fils de Balla Balla gay moo koy indi góor a Modou Lo moo koy indi mu nar a nekk combat ba nga xamante ne bii ñaari komba lay doon ci biir règlement de compte la mu mel ni Balla Gaye ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Modou Lo la nar a gisaat ci boobu boobule combat wante démb dañ ne dañ leen a waxoon ne combat Reug Reug Sa Thiès daanaka li ci des pour mu taxaw bareetul tey nag journal bi dafa jox kàddu ki nga xamante ne bii moom mooy Pala Mbeng di manager wu euh, Reug Reug euh, Pala Mbeng lim ñu xamal moom mooy am Reug Reug am na staf mais pas moom nee na nag staffam. ñoom ñooy négocier li nga xamante ne bii moom mooy ay kombaam staffam mooy ñooy ñooy waxaale combat ki nga xamante ne bii moom mooy euh, rëg-rëg pale Mbengue mi ngi ñuy xamal ci biir journal bi ne démb woon na ki nga xamante ne bii moom mooy Ibrahima Diop mais li mu ko xamal mooy rëg-rëg staffam bokk na ci ki nga xamante ne bii mooy Modou seen bokk na ci Leyti seen bokk na ci ki nga xamante ne bii tamit mooy papaam bii nga xamante ne bii mooy El Hadj kon daal mën nañ jàpp ne combat rëg-rëg ak ki nga xamante ne bii moom mooy Sa Thiès wala combat rëg-rëg am na promoteur ba nga xamante ne bii mi ngi koy dox te yaa yàlla mën naa àtte du yàgg tuuti mu mu mu daal di taxaw bu ñu jógee foofu Mansour dañuy dugg ci euh, biir journal bi ba léegi dem touche face to face bi war a am ci diggante ki nga xamante ne bii moom mooy Eumeu Sène ak bombarde fële ca wal Fadjri bu ci yàlla àndee ci samedi bi combat bi war a am le 27 mars ca arène national nekk revanche Eumeu Sène daanoon ki nga xam ne moom mooy Bombardier ñu war a bërewaat nag la le 27 Bombardier day jël si revanche wala Eumeu Sène day confirmer jël bi mu ko daanoon won ko ne la ma la daane woon ba léegi mu ngi fi maa la mën te dama lay daan ñaari yoon ñu war a jàmmaarloo nag incha allah bu ci yàlla àndee euh, suba ci samedi bi fële ca Walfadjri TV mu nar a nekk seen jàkkaarloo bu mujj ñu nar a xool ñaari mbër yi seen état de forme parce que mën nañ wax ne combat bi daanaka li ci des bu ma tee fukki fan wala ci la yem euh, ñu bëree buñ leen xoolee ku ci nekk mën nañoo xam fan lan sa état de forme fan la toll te it lan nga nar a andi jouru làmb ji incha allah bu ci yàlla àndee bu ñu jógee foofu ñu dem ci ki nga xamante ne bii moom mooy soq ak Franc wax naa leen ko sànq ñoom ñaar war nañu war nañu bëree incha allah bu ci yàlla àndee soq nu nga fële ca écrit bi ñuy wax xam sa cosaan euh, euh, Franc nekk fële ca jàmbaar ca ñoom Papa saw di mbër ba nga xamante ne bii tamit euh, gis nañ ko li mu def ci arène bi wante gis nañ ko li mu def ci li nga xamante ne bii moom mooy mbapat bi ñoom ñaar tey la ñu war a daje def seen première face à face tey la ñu war a daje def li nga xamante ne bii moom mooy seen première bataille psychologique bu ñu jógee foofu dem ci Modou Yacine xam nañ ne. li ñuy wax transhumance nekkul ne ci làngu politique gi kese la am mais ci làmb ji tamit am na transhumance ndax dañuy gis mbër yi parfois mbër day jóge ci écrit bi dem ci balee écrit loolu nag la ñu nemmeeku ci ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Modou Yacine nekkoon fële ca euh, Fass Bennoo jóge na Fass Bennoo léegi dem na Fass Ndakaaru mooy écrit bi nga xamante ne bii ñaari écrit la ñu lëkkale ñaari écurie la ñu boole def ko muy benn écurie écurie Fass la ñu boole ak écurie Ndakaaru mën nañoo jàpp ne fi mu toll nii Modou Yacine jël na ay valisam jël na ay kaakaakam ak ay bagaasam dëgmal fële ca Fass Ndakaaru bu ñu jogee foofu ñu dem ci ki nga xamante ne bii moom mooy Sidi Diakhaté le promoteur de Thiès benn dëkk ñaari kaar di euh, promoteur ba nga xamante ne bii day décentraliser làmp mën nañu wax ne incha allah bu ci yàlla àndee. le 20 mars bii ñu dëgmal ma nga jëm fële ca Jurbel sama dëkk dafa tëgg nag ay xale ya nga xamante ne bii macha allah kenn mënul tudd làmb te doo leen ci boole grand combat ba war a dox ci doomu Mbàkke xale bi Gémbo Mbàkke mën a bëre am fulla am fayda nee naa leen bandi géew la su bëree mu neex su bàkkoo mu neex wante kan la ko Sidi Jaxate booleel kooku mooy Buubu Caski Buubu Caski mi nga xamante ne bii li muy wax naan foo foo taxaw ma fekk la fa timbax la ko mën naa bëre. mën naa dóor te it am na gannaaw moom tamit ñu nar a gis grand combat bu neex wante combat espèce spécial ba rek mooy dàq grand combat bi bébé Balla mi nga xamante ne bii depuis un mois mi ngi top 5 ba léegi ci ran job la jógee daane daanoon ko jël bu rëy daan ay moroomam léegi nag bëgg a dugg ci fi nga xamante ne bii mooy ay magam war a bëre ak ki nga xamante ne bii moom mooy bonus bu mbaqaan ko boobu mooy combat spécial bi nar a nekk combat bu neex wante Sidi Jaxate teg na ci yeneen combat ndax Ndefleng dana fa bëre ak ki nga xamante ne bii moom mooy tey mu neex gaynde daaro dana fa bëre ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, xale bi nekk écurie Touba Ndiarème ñu naan ko nag bi junior wante ñam xam dana fa bëre ak ki nga xamante ne bii mooy Zarko bu écurie Euh, Soweto nar a nekk combat bu neex nar a nekk journée bu neex nar nekk ay journée ya nga xamante ne bii ay xale yu mën a bëre la ñu ca la ñu ca la ñu ca nar a gis mbokk yi loolu moo nekkoon li leen euh, taataanaloon li leen jukkiloon ci ëttu yéenekaay yi nga xamante ne bii ñooy bind ci wàllu làmb di jaajëfal Mansour mi nga xamante ne bii mooy sama caméraman Mansour Fall ma tudde ko le Benjamin de caméraman caméraman bi nga xamante ne bii macha allah heure bu ma àndeek ak moom. damay am sawarte caméraman bi nga xamante ne bii heure bu ma àndeek moom damay kontaan ndax macha allah angle yi may jëlal ak li ma bëgg loolu rek la may defal maa bëggee bu baax a baax di ko jaajëfal njool mu ndaw mi njool mu ndaw kaay dogaale ma yóbbu aawaloo may lay rootal di la fóotal di jox sa yaay muy naan Adja Xaar Mbay moo ko woyoon ca woy wa ma nga jaajëfal naa ko bu baax a baax moom Mansour Fall di jaajëfal Mbay Babacar sama tooma borom OTV bég naa ci yow liggéey bi rafet na ñu ngi koy gis di ko rafet lu ba bu baax a baax mbay Babacar borom OTV kontaan naa ci yow maximum de respect moo Thomas jàmm ak salaam ci yow ayda Dage kontaan naa ci yow di kontaan ci Ndeye Mbacke sama rakk ji nag di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ci beneen revue de l'arène fii ci Leewtoo TV jaageen jëf.